amul benn article bu bu nekk ci règlement intérieur de l'Assemblée buy wax ni mesure d'urgence nii ak nii la ñuy def donc déjà la ils ont carrément violé sax bu ñu ñëwee bi ci biir amoon na également euh, nu mu tudd ñun lépp lu ñuy def à l'Assemblée règlement intérieur moo ñu ko may mosuñu violer la loi ñëpp xam nañ ni la coalition Yewwi Askan bi depuis le premier jour bu ñu bu ñu installé en 2022 vous avez comme comme nu nga ko waxee déjà la gendarmerie était venue ñu violer également le règlement intérieur et la gendarmerie n'a pas le droit d'entrer à moins que le président. ah mais bien sûr mais boobu voilà mais boobu mais boobu y avait même pas encore de président mais ils sont venus. Hmm. lu ma ci neex démb je l'ai dit à l'Assemblée. ça montre comment est-ce que ce gouvernement-là a toujours fonctionné et comment est-ce que tout le monde a fermé les di leen xool ñi violer la loi violer la constitution di def lu leen neex parce que dañu am doole parce que tout simplement ils ont la gendarmerie avec eux ils ont les forces de défense et de sécurité avec eux donc ñoom lu leen neex la ñu def ñu xaar ils ont ils disent que qu'il y un décret mais le décret est sorti quand après bi ngeen bi ñu waxee après il fa fallu qu'on en parle et qu'on en reparle qu'on en reparle dans l'hémisphère pour que ñu génnee euh, nu mu tudd le décret en décret bi ñu koy génne voté nañ ñu war a voté voté nañ ba pare. non de toutes les façons ñun avec sans le décret ñoom ils allaient voter parce que loolu lañ tàmm mais ñun le problème c'est même pas le décret parce que le décret il n'est pas important. en ce qui nous concerne bu fekkente ne ça concerne lu ñuy wax nii pour pour le calendrier électoral mm. le décret amu ci benn valeur <coughs> amu ci benn valeur parce que seul la conseil constitutionnel mm-hmm. moom moo mun a wax si nu mu tudd si élection yi et le conseil continue jusqu'à présent il s'est pas prononcé man li ma jàpp li ma jàpp mooy Macky la comme d'habitude il fait di forcing comme bu mu gënee génnee le décret boo xamante ni moom mooy tëj le siège de Pastef alors que amuloon aucune loi ne la dit c'était un décret donc nous on a on avait la possibilité d'attaquer le décret et on l'a d'ailleurs fait mais ba léegi amul benn juge qui s'est prononcé sur le fait que on on on on doit Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis la charrue avant les bœufs. C'est un État qui n'écoute pas la, la, ce loi. Moom, il di que c'est le garant de la Constitution, mais il est le premier à violer la Constitution. donc euh, man loolu moom ma ci nekkoon ma ko waxee il montre toujours à quel point ñoom ils sont violents que ñoom c'est un état terroriste ñoom ak ñu mu àndal tous ceux qui sont avec le Benno Bokk Yaakaar dañu ànd avec sa politique de répression de Macky Sall et c'est vraiment dommage démb donc on a vécu ça alors que décret boobu mënoon na bañ a ñëw euh, la la proposition de loi bu ñu def mënoon na bañ a ñëw pourquoi il y a san 120 kii qui qui dit que un mois après installation des députés mën nañu ubbi la haute cour de justice c'est cette haute cour de justice qui peut juger un juge qui peut entendre un juge qui peut même entendre le président de la république haute cour de justice boobu buñ ko installé woon fast track ba ñu def démb simagre ñu def démb soxlawuñu ko woon donc en ce moment avec la haute cour de justice on pouvait entendre les magistrats